ci ki nga xam ne mooy borom bés bi kan tafsiru Moustapha radiyallahu anhu mooy ki nga xam ne yàlla defal la ko ay mbir yoo xam ne maa ngi dox mais dajooguma ko te nag yàlla bés yónni cuune yàlla kum yónni borom tër yàlla du yónni cuune mukk ndax tafsir Moustapha radiyallahu anhu dafa yéeg maqaama waxoon naa ko sànq ba mu yeggee maqaama ñu toog ba quatre heures du matin génn góor jug di jàpp beneen waay bu nekk foofu xam nañ turam di tafsir Abdou Guèye ca Dakar di imam Grand Yoff mu ne ko yow looy jàpp mu ne ko tey ci guddi tey jii la yàlla defaloon yonente yàlla muhammad ca ba ca isra isra mooy lan jógee màkk jëm baytul maqdis su ne mi'raaj mooy jógee baytul maqdis jëm asamaani juróom-ñaar mu ne la ko yàlla defaloon nag ci baytul maqdis mu ne mboolem yonente yi nan ñëw toppoo ci ginnaawam julli mu jiite leen loolu de la yàlla digal tey képp ku yàlla ma sa takkal garaat ñëw ziyaare si ndokkeel si tafsir Mustafa kon loolu ci moom laa ko gisee déggootoo déggaatuma ko taw ku yàlla ma sa takkal garaat tafsir Moustapha waxu ko de mais nitu yàlla bu fa newoon ci jamono jooju moo gis gaa yi di ñëw mu dem jàppi ba sell ñëw toog ngir lan ngir préparer ànd ak gaa yooyu siyaare ndokkeel tafsir Moustapha radiyallahu anhu fekk mu ngi yëg ci maqaama xawsu du ma sori ci maqaama ko beneen bi mooy lan kon xoolal cër boobu yàlla yonante la ko mayoon mais xoolal Seydi Ahmed Tijaani mooy ki nga xam ne la mooy gis maamam yonante yàlla Muhammad ginnaaw ba mu demee fu ne ñii wax nañ ko ñëw la ñu tuub la ñetti fan ñii ne déedéet yaa ma donn ñii ne ko laa budda an tudrika maqaama imaam Shaazili lu ci mën a am lu ci mën a am caabi samquun ba mu toogee lan la ko yonante wax da kullu suyuuqika wa dar anaamu rabbika wa sheexuka al fa la ba joxee kaas bi mu naan ba man waaye kaas boobu di dox di dox bam nekk ci loxo Seydi Ahmed Tidiane ba kum naan lu lu doonaan Seydi Ahmed Tidiane moo jël kaas boobu ñëw jox ko tafsir Moustapha tafsir naan naan naan ñu koy wax ak fi haqiqati Muhammadi tafsir Moustapha naan ci kaas ba ba mandi bëgg nag wane ak sant yàlla mu ne suuratu cheyqi ajabatni jamala faru cheyqi tijaani xaawil kamal mu ne kat Cheikhu Tidiane jox na ma kaas bi man naan ko waaye Cheikhu Tidiane ñi ma gis yéen ñi ko mës ma gis xam leen melaw Seydi Ahmad Tidiane yéem na ci taar dàq na képp ku dëkk ci teero dàq képp koo xam ne dëkk na ci xal kon muy noonu fa tabaarakallaahu ñu nar a jël benn qasida di alhamdulillahi rabbil juudi wal karami summa salaatu ala almuxtaari zil qatami alhamdulillahi rabbil juudi wal karami waay waay ku bëgg Sëriñ Moustapha defal nii ma joobe ko alhamdulillahi samawati wal ard suma salatu ala al mukhtar zil qitam wa ma hamdan qadim lil qadim suma salatu ala al mukhtar zil qitam ربها ثم صلاة على المختار ومن لا يشكر قليل لا يشكر كثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ثم صلاة على المختار الختم lil jotul. kallaa walaay saaru xayru mufannadi. mu ne ah fukkeelu maqaamu tafsir Moustapha Gaye. mu ne eh mooy ya tax lu tax mënuñ faa yegg. waaye doxee xam yàlla ak neneen ku ko soob. fal fuhuuli abil abbas sil karami. mu ne mooy kuy nga xam ne mooy abil abbas sil karami Cheikh Tidiane mos a tudd abil abbas. xalifatu Cheikhina Tidiane. waaye ki nga xam ne amoon na ku rek la yàlla bind ci xeeti xam-xam ñu ne kii kat dafa mel ne Abdul Abbas. xalifatu Seyxina Tijaani munfaximi. mu ne waaye nag li ma bëgg nag tey mooy woy ak tagg ak wax. xalifatu Seyxina Tijaani munfaximi. man qadaar riqaabu lahu. man qadaar riqaabu lahu xalifatu Seyxina. nga xam ne féetel na suuf mboolem doqi nitu yàlla yi. xalifatu Seyxina. mu ne mooy xalifa Sayyidi Ahmad Tijaani. xam ne mooy borom ak puukare di tafsir. sa qudwatun hasanun. mu ne mooy royukaay bi nga xam ne royukaay bu rafet. wal barzaqul karamun. ma ne mooy digluwaay bi nga xam ne ku tedd la. man baa bi hilmi. mooy ki nga xam ne moo ballal xam-xam. wal asraari wal hikami. waaye waaye moo ballal mbuut yi waaye moo ballal sirru yi. man haja lillahi. eh man baa bil hilmi moo ballal xam-xam yi. man baa bil hilmi wal asraari. wal asraari moo ballal asraari. wal hikami. ballal xikma man hajja lillaahi baytallaahi waxtamara xam kuy tafsir Mustafa man hajja lillaahi baytallaahi waxtamara mooy ki nga xam ne xaj na yàlla ba man hajja lillaahi baytallaahi waxtamara mooy ki nga xam ne xaj na néeg yàlla ba tamoo umra wasaa mooy tafsir Mustafa mbooleem farata yi da koo matal wasaala taybata qad marru lisil karami mu dem ca madinatu munawwar ziyaare yonent yàlla Muhammad hibbata qad murus li sil karami mu dem ca Madina ziyaara yonent bi nga xam ne moo ne ana aqibun la nabiyya ba'di man ala fi hajjihi man may aqib amul benn yonent buy ñëwaat sama gën man ala fi hajjihi mu ne hee eh, tafsir Mustafa mooy ki nga xam ne am na alafqaar ya habasa ne naa la am na fi hajjihi ci hajam qad saafa al Mustafa al Muxtaar fi al-hurami mooy ki nga xam ne naa la am na fi hajjihi ci hajam ga qad saafa Mustafa bu ma ajee saafa saafante nag al Mustafa yonent Yàlla al Muxtaar fil xurami ne moom lan tànn ci xurami ndax daana wax ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaarin xalifatullahi tànneef laa ci tànneef ci biiri tànneef xalifatullahi dafa mooy kuutaayu Yàlla asyaaqi alkuramaa mboolem sëriñ su tedd ci te bokk ak moom jamono tafsir Mustafa moo doon kuutaay mufassirul Mustafa waaye ki nga xam ne mooy firikatu alquran ba tudd Mustafa sul fadli wal karami mooy borom ngëneel ya waaye mooy borom tedd samsul huda mooy jëntam jub moom tafsir aariful aarifun aarif bu ma wal markizil fahimi aarif du benn sumi ndax nit dana nekk te doowul aarif ne dana ka aarif te duhul aalim mhm. ndax aarifu billahi kenn wa aalimu billahi sami taha aarifun ma ne mu aarif bi wal markazil fahimi eh, mooy saru dégg bi moom tafsir Moustapha radiyallahu anhu sami taha mooy nga xam ne yonente yàlla Muhammad lañ ko tuddee imaamu rusli yonente yàlla Muhammad ne yonente sil alami nga xam ne mooy borom dara po jub wal asraaru wa asraaran ak mboot wa maarifatu wa maarifatan ak xam yàlla law salaasi lañu màggal tafsir Musaa kal marjaani def leen ni ñu màggal tafsir Musaa yàlla faj ñoon Fuuta xalifataan dana sànni xam yàlla mawt fil bahri ne mel ni ay duusi géej ñi muy dóoree mu ne Pape Serigne Moussa ay mbootam ak maarifatu billahi ñu koy joxe nit dafa mel ni duusi géej lil awraadi lil awraadi li saqami képp koo xam ne da ngaa root si moom moom Pape Serigne Moussa dina la nandal ba nga maan alhaji tafsir qaadi alhaji tafsir moom alhaji alhaji tafsir Moussa moomu li taalibi mu ne qaadil haaj mm-hmm. gis nga benn ma mooy alhaaji tafsir Moustapha haaji ñaareel ga mooy haaji moo tax mu ne qaadil haaji mooy kii faj haaji yi bahrul wilayati mu ne hee mooy géejug wilayati haynu sirri wilaaya doom di ko judduwaale moom tafsir sil hakami wilaaya ñaar la bu la dama koo judduwaale haynu sirri tafsir Moustapha dafa judduwaale wilaayatu haynu sirri nekk ndaw nekk ci seedo haynu sirri sal Moustapha min Safa. mu ne kii may wax mooy Moustapha. min Safa. mooy ki nga xam ne Safa sell la. ahal Safa. al képp ku sell la sell la. wa saqa. mu ne nan dal la. raawal wara. koo xam ne mënoon na ci mbindeef yi. min min fudaati wal ifami. فإن خير الزاد التقوى زاد تقي واي واي وتلن يبل نخي يبل بي كن ماي رغال شاهد فين جيم كو بغا يبل ما رغال يالا واري هو سوق يبوت بيرت واري nee na moom tafsir Moustapha dafa sàmm. murido. mën na xam te xàmmeewut. la murido. mën na xàmmee te ràññeewut. murido. mën naa ràññee te maanduwut. murido. mën naa maandu te sàmm. murido. Moustapha nag mooy kii maandu woon sàmm xam-xam. murido. taalube. laay daamu. laay daamu du ko gotti moom. daari min alami. jamono min alami ci benn bi. sayxi. tafsir Moustapha képp ku ko gëm. sayxi. ak dina xaw ma kañ lay solal. sayxi. ruusnati sonal xanaa def tafsir àddina ruusnati sonal sayqi eh cheikhun sëriñ la murabbi murabbun ku yara alim cheikhu tarbiya dafa am cheikhu tarqiya am sayqi murabbi saat am alimun te tafsir Mustafa mboolem xeetu garaati sëriñ la jëjënt sayqi murabbi sëriñ la murabbun ku am xam-xam si Moussa. man xaama esprit. moo daan ubbi la tëju woon. sil karami. Eh, mooy borom tedd nga ji laa. man xaama eh, esprit. taxaw na sëg moom tafsir. si alil hadsi. àndal képp koo xam ne. min sirrihi. Eh, yubri min al faydi. tukkee ci bopp googu. wal hirfaani. sàkku ci moom. fahmi. man saaroo naa la. mu ne hee mooy ki nga xam ne. man saa. jóg siyaare ji ko.

koo xam ne jóg na ziyaara ji tafsir Moustapha irrumta fa jëlee njëggal mm-hmm. da nga fa jëlee xam yàlla mm-hmm. da nga fa jëlee fajog haajo mu ne billahi maa ngi gën ci yàlla laa wax laa zahmi waxu may fen laa yasur baabooli tanal faw yaa saahi yaa saahi bii la woon yaa tafkim ko ne yaa saahi irrumta fadlan mu ne su fekkee da ngay sàkku ngëneel suma maarifatan eh, li tanal fawsayni wal karam ngir nga am texay àddina ak àllaaxira ngir nga am teraanga àddina ak àllaaxira subaabuhu ziyaare bu tambawaay li takun ngir nga bokk naa li hadratihi soo bëggee bokk ci gaa yi yàlla yi ziyaare tafsir Mustafa min aali hadratihi soo bëggee bokk ci gaa yi yàlla yi ziyaare tafsir Mustafa xisbu fil ammi soo ko defee yàlla dana la xettali ci wal ahsaani wal qumami xam ne wa man raaya wajhu yow man raaya wajhu yow man jumaati kasa bisu aljuma wa man raaya wajhu yow man jumaati kasa nabsul mustafa bisu aljuma lusnayni kadali isnayni nga jumal la yadkunu nirani la sahami safaramu mu ne billahi la sahami lahu nujum ndax loolu Cheikh Tidiane la ko yàlla mayoon min al awlaadi Cheikh Tidiane la yàlla defaloon ku ko gis aljuma ba nga gis ko altine yaramam xaraam na safara tafsir Mustafa mooy kii doon mbóot moomu ci Seydi Ahmad Tijaan. moo tax mu ne wa man raaya képp koo xam ne gis na. waju. bi boole ñett. balim nool haaji. xam-xam soo amul ñett xamoo dara. balim nool haaji. ndax foog nga mën a maslaa mën a mosle ami masala. balim nool haaji. xam-xam soo mënta maslaa mënoo mosle amoo masala. balim ala doo dem. balim nool haaji. soo mënee maslaa te amoo masala doo dem. balim nool haaji. soo amee masala te mënoo maslaa doo dem. balim nool haaji. soo amee masala mën a maslaa te mënoo mosle doo dem. balim nool haaji. kon borom xam-xam da ngay mën a maslaa mën a mosle. salim noolaaji bal li fi nekk ibnuhu doomam ja alhaji abdullahi alhaji mi nga xam ne nuuru diini mooy leeru diini nuuru diini sil karami kay borom tedd fahum sumusul huda moom yëpp nag ay jënt lañ min bahadi walidihim seen baay bam fii ne nu juum alal ba seen baay di wal huda wal huda walidihim ginnaaw seen waytu naalal muna am ne naalu am min al muna نسوس أستاذي أبينا أبو ولا